bu ngeen paree tam ngeen zem vidéo bi ndax mooy tax ñu gën leen andi ay secret yu gën a kéemaane zem bi mooy waral ñu xam ne yéen ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax di leen ñaanal jàmm di sakku ñaan ci yéen di leen baalu xaq bu baax te di leen bal di ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu boole ni jégal suñuy xaq yi dox suñu diggante ak moom ak suñuy moroomi jaam ñi ngi fas yéene waat ak yéen ci njëriñ yi ñu baaxoo ànd ak yéen saa su nekk rek muy amal nit ki njëriñ insha allah tey ñu bëgg a waat ak yéen ci benn njëriñ lu am solo loo xam ne mbokk yi dañ koy laajte lu bare bare bare ci commentaire yi ndax dañu leen waxoon ne képp koo xamante ne nii bëgg nga ñu defal la ab vidéo ci mbir dañ koy commentaire lii nag bari na ñu koy commentaire moo tax te ñu ne faw ñu def ci ab vidéo incha allahu taala ñu mën koo dégg mën koo xam. laata ñuy tàmbali tam ñoo ngi sant mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo abonné ci seen YouTube bi tey topp liggéey bi di jaajëfal mbokk yi nga xamante ne ñooy partager vidéo yi tey wax ñi nga xamante ne abonné gun ñoo ngi leen di ñaan ñu abonné ndax mooy tax bépp vidéo bu ñu dugal rek ñu mën koo jot incha allah kon abonné leen ci chaîne youtube bi di le grand secret en wolof ni ngeen koy gise noonu euh, da ngay bind allahu kun dafa aju nag ci ki nga xamante ne dafa bëgg a tukki tukki bu jaar yoon nag moo tax ñuy wax dafa bëgg tukki di lijjante ay visa ak yaaja topp bëgg sun borom jàppandalal lu ko bu baax lépp lum jublu rek aaji jooje faju mu tokki ci anamuk jàmm ak salaam ca yoon wi nga xamante ne mooy yoon wi gën incha allah bu dee def ñaan gi sun borom dana ko ko jàppandalal bu baax ba tolluwaay bu mu ci tollu rek sun borom taala defal ko ci kon mi ngi noonu da ngay bind allahu kun def daal di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal bind suuratu tiini suuratu tiini danga koy bind 63 fois juróom benn fukki ak ñett moom ngay bind suuratu tiini soo ko bindee ba pare nga def ko ci ndox boo ko defee ci ndox nag dañ ci daal di sangu day nekk saafara soo xam ne dañ koy sangoo waaye ci biir càngaay loolu tamit dangay boole di ko wirdu bés bu ne nga wirdu ko 63 fois bés bu ne nga jàng suuratu tiini 63 fois boole ko di ko sangoo kon mi ngi noonu bindal suuratu tiini ba mu jeex 63 fois nga def ko saafara di ko sangoo boole ko di wirdu service bés boo xëyee juróom-benn fukki yoon ak ñetti incha allahu taala suñ borom dana leen jàpp ndalal seen yoon ba ngeen defee ko ni kawe njort incha allah ci sababu saar bu am solo bu màgg bi kon mu ngi noonu tey loolu lañ leen indi woon ñoo jox leen dig daje rek incha allah xam naa ba beneen yoon ci beneen vidéo koo xam ne itam dafa bëgg ñu jàppale ko ci yeneen mbir numéro baa ngi noonu di affiché ku ci woote rek incha allah jaar bi nag comme nun ko waxee woon fan yu ñu weesu rek am nañ fi jaar jaar bu kéemaane lool sax buy dox ci bayre wërsëg yaatu lool ubbeeku chat ak yeneen mbir yu kéemaane te jàppandalal jàppandalal nan ko mbokki kon jaar bi ku ko soxla foo mën a rek incha allah eh, mën nes na ko defar fexe ba nga jot ci su ko defee tamit ñu ngi ñaan ngeen di am vidéo yi bu fekkee li ñu li ñu leen di laabire di ay njëriñ yoo xam ne dafa méngoog alquraanu karim ak sunna si yonante bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ñaan ngeen am vidéo yi ndax bu fekkee yéen a ngi am vidéo yi mooy tax ñu xam ne li li ñuy def de yéen a koy bàyyi xel te neex na leen loolu nag dana sabab ñun ñu gën a góorgóorlu ci di leen gën a andil yu gën a am njëriñ fii ci seen YouTube le grand secret en wolof ku ci am question tamit mën nga ko poser ci commentaire yi.